بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه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 sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi ummatihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ndokkeel ci jataay bu tedd bi eh, ñu teew fii ci kër cheikhul xadim eh, ànd ak cheikh mohamadul xaban ibnu cheikh mohamadul fadal mi nga xam ne moom la sëriñ bi dénk lépp lu aju ci wàllu njàngum alxuraan ak jàngale ko fii ci dëkk bi ànd ak euh, laj na tansiqiya ci jaaisatu cheikhil xadim al alamiya li taxfiisil quraanil karim bamba al alamiya li taxfiisil quraanil karim euh, ànd ak waa lajnatu taxkim ak bokk yi nga xam ne yëpp ñu ngi ittewoo jàngum alquran ak jàngale ko ñu dajee woon tey ngir tolluwaay bu am solo mooy xam ngeen ne nangami weer ci gannaaw ba léegi ñu ngi yëglu doon wax ci soloy jaa isa boobu tansiqiya bi ànd ak waa yaatal ko fu nekk mbokk yi bindu yónnee seeni talab lajnatu tasjil jël ko jébbal ko al lajna al fanniya mu saxal ko ci banque de données ba tasjilaat yi jeex lajnatu tasjil jébbal ko lajnatu tahkim euh, tansiqiya bi taxawu leen ñu liggéey ci liggéey bu am solo fekk lajnatu taxkiim jiital nañ liggéey bi ñu war a jiital mooy def istimaara juboo ci dawaabit yi nga xam ne ci lañ war a liggéeyee te loolu yaakaar naa koo xam ne agsi na ci yow gis nga ne istimaara bi yaatal na ba gën a yaatal yu baree bari muy liggéey bu am solo waaye yamu ca mu mel ne dajee nañ ceeg laj tax kiim dajee na ci ci biiram euh, defal ci sax formation ñi nga xam ne ñoo ko war ñoo ko war a def ba nga xam ne bi ñu agsee ci bis bi it ñu taxawal ay équipe équipe bu nekk ñetti nit am ku ko jiite ñu jébbal leen ay tas tasjilaat ñu déglu ko biñ koy déglu seetloo nañ ca ne lii day dana tax ñu jekk ko noo xam ne bu xale bi toogoon ci sa kanam sax xëy na doo ko mën di delloo gannaaw lu toll noonu ñoom ñu am temps bu doy ngir visionné ngir déglu ba kenn ku nekk jël note bi yàlla dogalee loolu ñu noppi ci tey jii at tansiqiya wala lajnatu tahkim eh, ci ron kilifteefuk Cheikh Mahamadul Xabaan xaban niñ ko waxee woon dajeewaatoon fii ngir jottali leen liggéey boobu ni mu tëdde eh, dañ ko tëraloon ci ñetti xaaj far boo xam ne dañ koy mën a tudde xifs ma tayassar walla xifsu asrata ajisa mooy ñi nga xam ne jotuñoo mokkal alxuraan tañ te jaay sa bëgg leen a tas jiyan ngir ñu am cawarte ba gën a mën a yokk seen ngóora tax ñu def ko xifsu ma yasar ak beneen far boo xam ne mooy faru saani di xifsul kaamil ma tajwid ak faru bi nga xam ne mooy bu mujj bi xifsul kaamil ma tajwid wa tafsir benn bu ci nekk ñu wax ne buñ ca àggee déglu leen gannaa boo xamee ne biñ dajalee vidéo yooyu yëpp demoon na ci téeméer ak juróom-benn fukk yu manqué tuuti 157 am na sax yu ko xaw a ëpp waaye ay manqué manqué def cey am waaye kon liñ déglu muy cent cinquante sept faana bu nekk ñu tànn ca fukk ak juróom yi ci jiitu tàmbalee ko ci faron ajisa muy xifsumaata yasar bi euh, biñ ci accès fukk ak juróom yi may bëgg a lim ñooy ñi nga xam ne ñoo ci jiitu seeni tafasil nag ku nekk daraja yañ ko jox loolu dinañ ko bind génnee ko publier ko dinañ ci defaatit yeneen jataay yu gën a yaatu waaye tey jataay bi dafa xaw a yàgg kon fukk ak juróom yi ñu tàmbalee ci Abdoulahi Guèye mu bàyyi ko ci daare sëriñ alxaaji ñan ca Jurbel Mouhamad Guèye bàyyi ko ci mahadul basiriyati ca Ndar Fatimat Fatimatu Jaxate bàyyi ko ci daaray Serigne Thierno Mbaye ca Yaraax Iliman Iliman Dia bàyyi ko ci Mahadul Basiriyati ca Ndar Aliyun Badara Seen eh, bàyyi ko ci daaray Abul Xaasim Asatibi eh, ca Ndar soxna Fatimata Njaay bàyyi ko ci Mambaul Ulum ci Touba sëriñ fàllu njaay bàyyi ko ci mahadu farisil islaam ci ndar soxna anta silla bàyyi ko ci mu as mu ci tuuba soxna maymunatu mbóoj bàyyi ko ci daarul muminaat ca jaxaay ahmadu ture bàyyi ko ci mu jàmmax cheikh ma paate mbay ca jaxaay Pape Ibra Dieye bàyyi ci eh, ci Saint-Louis rek lañ def indi wuñ turu daara waaye Saint-Louis la bàyyi ko eh, Rama Gaye bàyyi ci eh, moom it daara al ifriqiya ci Kaolack Abdoul Ahad Diallo Abdoulahi Diallo bàyyi ko ci daarul aramayni sarifayni ci Ngor Dakar bàyyi ñas bàyyi ko ci Mahadu Maam Makala Seck ci Kaolack Cheikh Ahmadou Bamba Dramé eh, bàyyi ko Parcelles Assainies ca Thiès kon ci faran bu njëkk bi muy ifsu ma tayassar juróom yooyu ñoo ci jiitu incha allahu taala seeni détail dinañu ko joxe ci namu gën a yaatale ku nekk lu am ci ay daraja fana bi ci topp di xifs ma tajwid ka ca jiitu di Ahmadu Lamin Faal ba tey jóge ci daaray Abul Xaasim Assaati bi ci Saint-Louis Adama Wuri Jàllo bàyyi ko ci daara Ousmane ibnu Affan ci Kolda Mahmoud Gaye bàyyi ko ci madrasatu ahlul Qur'an ci Touba eh, Ndey Seynabu Ngom bàyyi ko ci daara Cheikh Mouhamadul mustafa ci tuuba Maam Busa Jaw bàyyi ko ci daarul maarif al islamiya ci tuuba faatimata Bintu Diallo bàyyi ko ci mahadu salaam ci pikin maam jaara faal bàyyi ko ci al mahad al islamiye jaaratullahi mariama bu sa kon poroxaan maam abdallahi jaxate bàyyi ko ci mahad naylul maram Touba mustafa Diop bàyyi ko ci mahad sayxul xadim Touba Ibrahima Fall bàyyi koo ci madrasatu tawakkaltu alallaahi kër Masaar Mouhamed Diop bàyyi koo ci alhaajatu alxa alxaajatu bintu Thiaw kon mahad asayda bintu Thiaw ci cene ba Mouhamadou Habib ja bàyyi koo ci daaray Omar ibnu Abdul Aziz ca Mouhamad Sow bàyyi ko cene ba Saliou Ndiaye bàyyi ko Touba bàyyi Ahmadou Kebe bàyyi ko ci e, kon farax bu mujj bi bu ñu nee nag mooy dañ ko def ay kuréel muy ñi nga xam ne dañoo mokkal alquran tajwid ko tajwid bu rafet te mokkal alquran lépp ñu beral leen benn kuréel ñi mokkal alquran di ko taj wi taj biir bu rafet te boole koog di ko tafsir ñu beral leen benn kuréel ñi mokkalagut euh, tañ di leen ci soññi bëgg ñoom it ñu jaar ci yoon wi gën a góor góorlu ñu beral leen beneen kuréel kon noonu lañ ko tuddee ci ñetti faran yi bu dee bi nga xam ne moo jëm ci wàllu tafsir bi nga xam ne moom ci liñ ci seetlu mooy at yi dafa mel ni moo xaw a tënk ñu bari ba tax bari na lool ñu yëglu ñu yëglu bëggoon cee bind waaye liñ ko plafonné woon ci 30 ans moo tax ñu bari ñi nga xam ne bind woon nañ te weesu ko mënuñ leen woon a jël ndax liñ ko bindoon moo tax lim biñ ci am nii la toll muy Mouhamadou Bachir maanaam ci biñ xoolee ñi nga xam ne seenu bi leen laj na taxkiim xoolee ndax mu ñoom dañ leen di xool ci ni ñuy xool ñi ci ci ci ni ñuy xool ci tajwid lépp bagal door leen a xool tafsir waaye biñ leen xoolee ñi nga xam ne gis nañ ne man nañoo jàll nag mooy lim bii may bëgg a tudd Mouhamadou Basir Sambo jege ci Mahadu Farisil Islam ci Ndar Mouhamadou Moustapha Ndaw jege ci markazu daarul arxam ci Kaolack Nafisatu Bousso di candidat libre ci Touba Ndamaatu Mouhamadou Moustapha Niang jóge ci madrasatu maam Abdoul Aziz ca Mbuur Cheikh Ibrahima Seck mu as jóge ci muassatul ci Thiès kon ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo jot a matal sart ñu déglu leen seenum njàng tegu ci yoon tañ bokk ci faron tafsir yi ma at tajwid wala faron tajwid ma at tafsir kon lii mooy résultat yi nga xam ne moo bàyyi ko ci liggéey bu rëy bii nga xam ne boobu ba léegi mbokk yaa ngi ciy ànd ñu ciy jaajëfal ñëpp di ci ñaanal tawféexi suñ borom képp ku ci yëngatu ak nu yëngatu ba mën a doon ndax am na ay techniciens yoo xam ne ñu ngi ci terrain bi di waajal lii am na ay góor yàlla yoo xam ne ña nga ca seeni barab di yëngatu waaye bañ ko déggee dañoo làmb seeni i poos ne jaaysatu seexul xadim kenn du leen ca man te mu yey lool am ñoo xam ne it ñi ngi ci waar wi nekk ca seen i daara waaye bañ ko déggee dañ na lool yi dara jiitu ko ci li ñuy liggéeyal suñ borom ci alxuraan joxe ca seen bopp muy guddi muy bëccëg waxtu leen woo ñu wuy ca kon mbooleem ku ci yëngatu yàlla na ko yàlla fay ngeen jiw eh, ci barkeb sëriñ bi ci barkeb alxuraan kon daal loolu mooy résultat yi nga xam ne moo am incha allahu lépp lu ci war a topp ci ay leeral dinañu publici piblier résultat yi ci jumtukaayu xarala yëpp ba fu nit nekk ñu fekk la fa li des ci programme bi ci ñëwit dinañ leen ko communiquer incha allahu jërëjëf kon ñu teewlu rek sëriñ Mouhamadul xaban moom it li ñu eh, ak cantuk boppam la war a am ndax nii ngeen ko gisee ba mu ci xisee joxe ndigal. su ne woon dox leen mu doy sëkk waaye ba muy tàmbali nii la defoon wammat mbooloo mi yóbbu ci sëriñ ba ànd koog mbooloo ba tey jii kon jataayu tey jii luñ ci wax firndeel nañ la weesu lépp yàlla na suñ boroom yàggal jataay bi lool seral ko guy te leen ci ndam lii la sëriñ bi loo ba dénk la ko mbokk yi yéene la ko euh, loo ci séntu ci ndam yàlla na suñ borom defal lu ko kawe te ñu ànd ko génn